fii ci daayira Maam Jaara ji nga xam ni moo nekkee ci Poroxaan liggéey bi nga xam ni moom la fi fédération daayira Maam Jaara yi nekkee ci dakaar ci njiital soxna Maam Jaara Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadul Muntaxa benn ci liggéey yooyu noppi na muy bâtiment bi nga xam ni dañ koo jagleel jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekkee ci daara ji bâtiment bi nag bu njëkk nii la meloon ñu yokk ci beneen niveau ci kaw yokk néeg yi ba fi mu nii fukki néeg ak juróom-ñaar moom lañ ci liggéey fukki néeg yi ak juróom-benn benn bu ci ne ànd na ak salle de bain ngir nekkinu jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekkee ci daara ji lépp mucc ayib. bâtiment bi nag liggéey nañ ko ci liggéey bu jaar yoon lépp tegee ci xam-xam di liggéey boo xam ni dañ ko ànd ak mboolem fédération daayira Maam Jaara yi nekkee ci dakaar ndeyu askan wi ci njiital soxna Maam Jaara Mbàkke bintu Cheikh Mahamadul Muntaxa liggéey bi nag waa daara ji sant nañ ci lool gërëm taxawaayu fédération bi ndax dëkkuwaayu jàngalekat yi yittewoo nañ ko lool. kon waa fédération daa daayira Soxna Jaara yi nekk Dakar di ànd Soxna Maam Jaara euh, Muntaxa euh, di liggéey ñoom ñoo daal taxaw ci yokkalaat jigéen ñooñu seen logement yi euh, wax dëgg yàlla boobu tey ñu ngi ci sonn ci lool. def ko defin bu rafet boo xam ne bu dëppoo jamono la tamit wax dëgg yàlla te mu doon liggéey bu baax boo xam ne dañ ko teg ci xam-xam mu doon lu am solo euh, ñëpp na di ci bég di ci kontaan sëriñ bi lañ ko defal soxna jaar lañ ko defal ci daaram ji ndax jàngalekat kat boo ne daara kat jàngalekat mënu caa ñàkk te it buñ nekkee ci dëkk yi yaatu woo xam ne nii dina tax. seen xel gën a mën a daal dina tax seen njaboot yëpp ñu mën leen a uuf loolu dafa doon la xam ne farata la ba tax na eh, ñu ngi ci sant bu baax daara ji mi ngi ci sant bu baax a baax a baax kilifa yi ci daara ji yëpp ñu ngi ci sant jàngalekat yi mboolem ku liggéey ci daara ji rek am nga ci mbégte ci yeesalaat bi ñu bi ñu yeesalaat eh, dëkkuwaayu jàngalekat yi maanaam dolli ko ba nga xam ne ñoom ñëpp ku ne danga ci mën a am loolu jéego yu njëkk rek la. waaye liñ fi yéene bari na ëpp na loolu kon yàlla na suñu borom taxawu leen ba ñu mën a àggale seen yéene euh, ci barke borom dëkk bi di soxna jaara bâtiment bi nag caabi yi ñu ngi ko war a jébbal Cheikh Mahamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou xalifa général des Mourides samedi dëppoog le 12 novembre 2022 ci ziar bu mag bi nga xam ne moom la fédération bi fas yéene amal ci kanamu Serigne bi ci biir daara ji ba léegi fédération daayira Maam Jaara yi nekkee ci Dakar ndeyu askan wi ci njiital soxna Maam Jaara Mbàkke bintu Cheikh Mahamadul Muntaxa am na yeneen i naal yoo xam ne naal nañ ko ci daara ji mu jëm ci ñaari dortoir yi nga xam ni ay taalibe ñoom ñoo ko sasoo di ko liggéey liggéey bi nag sori na lool ndax li nga xam ne moo jëm ci gros œuvre bi noppi na jamono bi ñu nekk ci li nga xam ne moom moo di finition yi di bâtiment yoo xam ne day ñëw dooleeku ci dëkkuwaayu Maam Jaara yi nga xam ne ñoo nekkee ci daara ji di fi jàngee ndax yéene fédération bi mooy yokk dëkkuwaay yi maam jaare yi ba lim bi nga xam ne moo nekk ci daara ji ñu mën ko yokk ñëw leen gaaw ànd ak fédération daayira maam jaare bi ci liggéey yu am solo yi nga xam ne moom la naal ci daara yi maam jaare yi ci poroxaan ku ci bëgg barkeelu numéro yaa ngi nii